leen de d'accord ma wax leen lu leen ne mhm. Ousmane Sonko déclaration bi da ko hors de grand théâtre li ma ne d'accord ma la jurisprudence Ousmane Sonko la ñuy indi bu ëllëgee déclaration de politique générale bu mu def fu dul ci assemblée na tudd neneen te man mhm. sax d'accord ma parce que mhm. ñeneen dinañ ñëw ba ko def mais tôt ou tard fan lay mujjee yow waxal n'aie pas peur waxal ne man gëwma mu Pastef mënul ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ba ñàkk téeméeri doomu aadama ay boromi bopp yu wër Ousmane Sonko yoo xam ni. Mhm. mën nañ koo jàppale ci liggéey bi après nomination yi commencé boroom kàddu yu bon yoo commencé ah waaw wax waxet na de ana ñu doon wax appel à candidature. ñoom opposition bi <laughs> di ko dal ña la doon saaga dañ lay ñëw fekk si. Mhm. en matière de defar dëkk warul am négocier loolu muy dëkk. mais anarchie bi am ci réew mi mais lii kenn dafa xam lan la ENA. Mhm. premier ministre bi wax na ci. waaw ENA bi waaw. am na ñu wax ni âge limite bi 33 ans bi soose. Mhm. gis nga loolu pour man dafa am lu ko jiitu xamuma nga mooy lan. Mhm. indi réforme ci wàllu njàng mi. soose fii da ngay dem ba am ñaari jabar nekk papa wala yaay ba sa doom fekk la ci njàng mi ba léegi nii. <laughs> nii par rapport ak Occident. tôt le matin ñu xam ne suñ doom ci lii la spécialisé wu. ils te mettent là-bas. mais jaara imaginer primaire rek li ñu lay chargé collège li ñu lay chargé lycée lu ñu lay chargé nga demati université mais yow mais yow da dem ba à six mois de la fin ñu ne la spécialisé <laughs> gâchis dëgg la. Mm-hmm. université comme les comme les instituts ay IAM nangam sax tu fais deux ans trois ans de wala quatre ans. ba mm-hmm. à six mois. Mm-hmm. dans l'arrêt ñu ne la bon léegi spécialisé wul bu ko defee ñu préparer sa soutenance mais pourquoi dès le début. waaw yow boo ñëwee doo wax ni man ressources humaines laa bëgg a def man finance laa bëgg a def man mbay laa bëgg a def imaginez Amina. deux ans soose quatre ans. ñu chargé la lu tolloog cinq modules. tronc commun. waaw yi moom mën naa yàq sama àdduna. Mhm. mais au finish yow après benn lañ lay wax ne la ñëwal nga spécialisé wu. c'est mais sa waay te te benn boobu yow doo fa def sax six mois ci deux ans yi. Mhm. mais loolu itam laajul réforme. loolu bu ñu la ko defaloon depuis la première année di nga gën a xarañ. nga ko non da ngay xarañ ne la yow deux ans deux ans. yow dinañ la wan yow gestion publique wala ay finance wala wala ressources humaines wala nangam sax ñaari at nga toog ci mais nañu waxante dëgg soose. Mm-hmm. réforme yooyu itam jarul indi en Occident xale bi benn affaire lay bëgg di fooye di ko fooye ñu ne kii tennis la bëgg. Mm-hmm. mais ay banque finance laa def ak ay boo ne bëri doo dugg ci mbay bi ñu jàngal la bay. Mm-hmm. yow mi nekk doomu taax. nga xëy fii yor quatre cent mille francs dugg biir marlooj gi fekk say toolu nijaay foofu nga leen kaa leen ma expliquer leen man santuma leen dara gasal leen ma fii ñaari teen rek ma wan dinaa leen woon ay raaxool yoo xam ne traditionnel yéen yéen a koy defaral seen bopp gis ngeen gurtu yi ngeen gis nii léegi gars yi ne wow waaye li mu waay waay xam-xam am na waay ngay taw noor di taw nawet di organise ay pluie artificielle mais ñu ne la 33 ans ENA te fii daanaka yow balaa ngaa dëgër wala ñor ci njàng. ñu ne gars yi am nga 35 ans. li ngay jàng moo ëpp sax yow li ngay liggéey c'est bizarre. ah loolu la ñuy wax ba ci mm-hmm. parti. Mm-hmm. boo amee 35 ans ñu ne bon léegi génn na jeunesse. <laughs> waaye mouvement jeunesse bi jeex na parce que il a plus de 35 ans 35 ans c'est presque 40 ans. wallaay. Mm-hmm. loolu tamit loolu tamit oh, oh, daan trans. transport bi El Hadj Malick Ndiaye wax. ci mm-hmm. conseil des ministres bi. Uh-huh. ak TER man nag damaa yaakaar ni euh, Macky nag même bu nekkul dara. Mm-hmm. moom war na ñëw dem université wala woo ñu grand théâtre wala fenn ñu toog mu defar écran géant. Mm-hmm. waaw bu ñu ko mënee invité assemblée tamit. fa kan Macky représentant Macky. lu muy def assemblée Macky. non mu ñëw. Euh, comme ça wala assemblée du fa xëj mu def ngandimaamu ah. écran te mu am yuuxoo kenn yuuxoo mu ñëw génneel ñu euh, contrat yi bu ko defee di ñu expliquer euh, ba xam ñoom bañ koy signé dañ doon gëmm euh, wala dañ leen a dorogee woon. ñu wax ñu motivation bi daal seen seen motivation. waaw waaw waaw wala wala. est-ce que gëmmuñu si ñenn. waaw parce que xam nga. wala ñu kidnappé leen rek est-ce que kidnappé wuñ leen woon. waaw gëmm gëmm gëmm signé la. waaw bu ko defee mu expliquer nit ñi de man damaa sérieux de bu ko defee mu gindi nit ñi wax ne. on signe les contrats dans ces conditions vous vous ne connaissez pas l'État yéen xamoo leen état yéen amee taskatu xabaar ngeen lii ak lii ak lii malgré jaar nga ci mairie mais xamoo dara ma ne ko waa ah, d'accord merci <laughs> mu ne nii la ñuy signer contrat ak lii ak lii non mais son excellence barki démb Bassirou Diomaye Diakhar Faye lan la wax le Sénégal qui signe un contrat boo xam ne de vingt ans. mu jël ko yóbbuwaat avec le partenaire vingt cinq boo xam ne sénégalais yi non seulement Sénégal gis ci boppam. Mm-hmm. mbir may ñu signé beneen boo xamante ni nii c'est pour vingt cinq ans. yokkaat yeneen cinq ans. maanaam suñu atu suñu njiitum réew ay atam contrat boobu ko gën a bëri. loolu mooy torox leen à vie rek. <coughs> waa mais waaye loo xam ne yow Sénégal gisu ci boppam. waa lii ah. ci pot la leen waa waa waa lii lii ragal la. wala wala ñoom dañ ci am as mboq suñu dugal seen poos ne xoolal nit ñi dañ dee man man man man naa tedd. Mhm. wa ilaa lii lan la. train express régional bii nga xam ni ñaari fan yu ne ñu ne Habana yaag sa dikk soose ñaari fan yu ne ñu ne yokkub Habana fu ñu déparé quatre cent milliards huit cent milliards ba Ousmane Sonko taxaw fi bëccëg ne leen c'est milliards. léegi ñu naan mille cinq cent milliards yow yéegoo sax ci région yi nga jël train wu waa Maroc yi ak ñun suñ bopp ak yeneen yi nga koy té méngale non Macky dafa war a ñëw man waxuma pour ay arrestation yooyu noonu comme ni ko ñeen ñu waxee. mu ñëw ànd waxuma ay affaire politique. mais bu ko defee bu ñëwee rek wala ñu wut ngandimaamu télé boo xam ni wala RTS mu dem toog fa. bon jour boobu sax nañ ko wutal directeur bi mooy jàkkaarloog moom ñu bañ a def benn politique bu ko defee mu mu ñuy expliquer daal. mu gindi mu rendre ñu compte. Ah? lu xew lu xew waaw kay bu ko defee mun nañu yéen da ngeen a xamul état moo tax ngeen ne ci rajo yi wax parce que yéen ñii naan ñun ñoo xamul. Mm. wala ñii dañ doon def yëfu maa tey wala jëlub tali jox koy tubaab. Mm. ne leen defar leen. waaye ñun nag duñ ca laal lu mooy fii ak ñaar fukki at ak juróom. waaye doo leen fay impo de benn somme symbolique ngeen di joxe at bu ne ngeen fay 1000 francs autoroute à péage 1000. 1000 libération mos ko bind ma koy revue de nii nit ñi ne non mais kii nag day def comédie waaye lii dafa mën a nekk 1000 francs de yow tamit 1000 ñaari téeméer ngay fay impôt ba coow la taxar naa ñu ne léegi wax nañoo Gérard Senac léegi garaawul dinay joxe temps. saway nga moom sa suuf moom sa dëkk ñu ne la am nga pétrole licence baa ngi wutal koo ko jaay nga wut koo ko gàcc bu ñu demee ba Sénégal ñu naan pétrole bi non ñu dix pour cent lañ ci am non c'est pas vrai ëpp na loolu ñun noonu dix-huit la parce que boo defee kii de <laughs> parce que mënoo ko exploiter waaw léegi il faut ñu indi ñu ko exploiter ñu ko ñu ko ñu ko man day man day dëgg-dëgg man day man man day conseil des ministres bi daal kii soose. Hmm. man daal lii laa ci jàpp ak lu jëm ci wàllum domaine public maritime bi hmm. jot nañu euh, pré rapport ba des na benn rapport définitif. wax na aussi ci communication bi ak stratégie yi nga xamante ne. ak communication bi bindoon naa ko sax waaw. xam nga hmm. communication moom heureusement que soose moom daj na ko moog Amina. communication nag soose. bon communication tam dafa yombul de. communication yombul wax yombul. li tax président utiliser le moo coordonné. Mmh. tu dans un ministère. nga wax dara le même jour. sa ministre mi ngi woon Léopold Senghor. wax wala Essat Ablaye Wade. wax le contraire. ngeen safaanoo. Mhm. déggoo du ci waaw ñu naan à ah, quelle déclaration se fier. c'est très grave son DC conseil en nangam dit que alors que le ministre à dit que. Mhm. moo tax mu war a am communication tontu bi tamit. noonu lay mel. gis nga nekkul ni ñëppay tontu. exactement. te tam nekkul ne it fu ñu leen ko ne duut rek. nga tontoo ko fa. Hmm. exactement. Hmm. léeg-léeg piège am gars yi il faut ñu def loo leen lii actuellement réalisation yi ñu def ci téeméeri fan yi ñii dama leen di perturber suba leer na ma ni jomaay mooy nekk à la une de tous les journaux mais bàyyil ba ca kanam rek ma def conférence de presse hmm. en urgence. maa moom ñoo koy occupé te boo sàggane sama koy ëppale pour nga koy jéem a noyé bu boobaa lan moo war a nekk nag réaction gouvernement bi ndax dañu war a bàyyi jomaay kese bis boobu mu dem da génn di def ko dama koy def samedi nga def dimanche dimanche si guddi sama état major génn dellu soit ci jomaay bi kese du ma la sax tontu. waaw ah, boo ko tontoo da nga koy may kii non non non la tontu du ma la tontu. dafa am loo xam ne yenn yenn saa yi dafay yeyoo tontu. parce que day am ay déclaration yenn saa yi yoo xam ne itam dafay xaw a dafay xaw a état. kilifa tamit wax ko. ay personnes autorisées entre guillemets te nekkuñ sax ci nguur gi bu ñu waxee nit ngi ne ah bon professeur Abdoulaye Bathily moo wax loolu. ah bon waaye yow koo xamante ni nii gars yi yow sa waay yi quatre personnes yoroo ko nga bëgg ma perturber lu toll ni état. dama lay bàyyi ci biir dama naan la du ma nekk sa chargé de communication du ma nekk sa directeur marketing. Mm-hmm. du ma ko def te du ma nekk sa directeur de campagne. Mm-hmm. da nekk fii di ngal-ngali ba ginnaaw suba. wala bu ma lay tontu ay tontu yoo xam ne nit ñi dañuy xam ne Ahmed mii diw lay waxal waaye duma ma tudd sa tur dama naan la sàcc bi <laughs> yow ngay wuyu <laughs> dóor fi sa baay barki Demba Ndiaye moo tax doo gañe kenn ñu yeggali. ñëpp xam ne Ahmed nii diw mii lay waxal. mais tudd ko. non mais doo tax mukk man ma jug sama kër wutali caméra yi. Hmm. du ma ko def ci état laa ne doxal la ma gars yi sant. Hmm. yow nag li liñ la sant guddi ñu toll nii mooy nittali ak yàq. Hmm. communication bi attention eh léeg-léeg ngay wax dara rek indil gouvernement bi guute goo xam ne soose. parce que dañ naan non non ministère lay liggéey wala présidence moo tax président woote pour. communication bi ñu koy coordonné waaye te mu saf sap santaanewul défensive de ñuy toog di xaar gars yi chaque jour bu ñu songee ñun ñu riposté alors que ça devait être le contraire. communication offensive. waaw. persuasive. la de doxalal yow. voilà. bala ñuy dem ci beneen ponk ñu dem ci nomini nomination yi bale bi daal jut mais instant bi nag may leen ko café mu naan tamit nag. ah bi tey di leen may bu kafe tey moom xam naa du yomb